Tidiane dañ koy doore ak coow lu rëy euh, euh, muy euh, gone gu jigéen goo xam ne doomu senegal la moom nag dafa joxoñ baaraamu tuuma ñaari doomi Turquie ne dañu ko dañ ko sàkku doomi senegal yi dund ca réew moomee nag daal ne dañoo bëgg ñu indi ay leeral ci mbir moomile gune gi ab étudiante la daanaka ñaar fukki at ak lu teg tuuti daa dong la am moom ñaari turc la jàpp ni ñoom ñoo ko sàkku maanaam violé Euh, ñaar ñooñu nag fi mu nekk nii police locale ba ma nga leen di euh, wër ambassadeur ambassade Sénégal bu nekk ca Ankara moom euh, sax dépêché na benn équipe ngir rek mu jël en charge gune gi maanaam victime bi ressortissant Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk foofu ca Turquie nag mer nañu lool di réclamer justice dañuy teewlu kenn ci ñoom mooy Assane Tall nekk président mouvement Yéeni Istanbul Chérif Dia moo jokkoo ak moom. comme ko jàppale Thierno Fall ba xam. nga xamante ni mooy xeexoo bi am di xewoon depuis ma ci guddi euh, ab suñu sénégalais di jigéen di ko xamante ni étudiante la rek doolu ñëw di liggéey ginaaw bu nekkee vacances ay turki yu ñu doon liggéeyal daal koy sàkku viol ko mooy ñaari turki muy lu metti loo xam ne ñu koy naqarlu di di masaw tamit jigéen ñi nga xamante ni ñoo fi nekk association jigéen ñi di naqarlu tamit ku ndaw si ak ak njabootam di wax ne lii moom dëgg-dëgg nekk na loo xamante ni gis nañ tamit taxawaay bi nga xamante ni sénégalais yi moom ci taxaw ndax boobaak léegi képp ku wax wala képp ku jëf rek yaa ngi ciy jëf te yaa ngi ciy défendre te yaa ngi ciy wax loo xamante ni maam intérêt Sénégal yi képp la gis nañ tamit euh, ministre bi nga xamante ni mooy affaires étrangères andi communiqué boo xamante ni mi ngi apaiser situation bi di dalal Sénégal yi pour ñu ñu ñu ñu ànd ak dal ànd ak calme surtout tamit aussi ànd ak euh, respect te xam nañ ne comme donc seen loxo dugg na si rek jàpp nañ ne tamit aussi lii justice na teg

def seen investigation pour mën a def seen enquête pour mën a wut ay PV yoo xam ne day gën a wóor waaye ñu xam ne xale bi li ñu jàppoon ne ni ko téye dellu nañ ko si ay mbokkam incha allah rabi te jàpp nañ ne justice dina def liggéeyam te état bu Sénégal aussi dina accompagner xale bi accompagner Sénégal yi fi nekk ba lii xam fu wàññante mu cee gëdëm Cheikh Tidiane. voilà euh, jërëjëf euh, euh, waajooju ñu doon dégg muy wax ci mbirum gune googu ñu sàkku ci kanam sax dinañ ci dalal benn sant sénégalaise boo xam ne ma nga foofu ci Turquie moom mooy sunu ganu info matan depuis Fatick ci wàllu xibaar ñu ngi koy wax ab accident nag la bu ñuy tudd waaye ña ngay vérifier information bi mm-hmm. su sottee muy lu doy waar mm-hmm. mais de toute façon ñi ngi koy vérifier ak sunu ndaw li nga xam ne ni euh, ñoo ñu nekkal fële ca euh, Louga di Thierno Fall. ñuy wax ne lu ëpp fukki bakkan ak juróom wala boog nu ñu toll waaye nag information bi dañ koy vérifier ni ñu ko xamee euh, ñu ngi def wàllu recoupement di fàttali ne ci kanam tuuti incha allah bu ñu paree ci génnekaay ak la ñu xëyee daañu woo Thierno Fall moo ñu toogal foofee ca Louga ne ñu nag diggante Ngumbala ak Kébémer ñu ngi wax daal accident bu métti bu day waar bi yaakaar naa wala sànq daal lu ci mën a am xibaar de toutes les façons euh, dinañu ko euh, euh, vérifier ñu wéyal xibaar yi wala Cheikh Tidiane fii lañ ko yemale. waaw ah, ñu wéyal ci ak. ressorti wàllum. Euh, grève bi voilà transporteurs yi euh, baal leen ñu de euh, accident bi ñu dégg ak kii moo ñu xaw a fàbbi tuuti ñu wax ci grève des transporteurs ci talaata ji ëllëg lay door ak car unitaire bi lëkkale syndicat yi bokk ci dem ak dikk ñoom nee ñu kaccat leen ca ñoom nee nañu bokk ñu ci grève bi waa cadre unitaire des syndicats des transports routiers ñoom grève boobu nga xamee ni kii di Goro Xuma ak ñoom Alassane Ndoye ñoom ñoo ko sumb ñoom nag bañ doon amal seen assemblée générale ñu ngi ñaan nguur gi euh, mu jël responsabilité am ngir rek euh, ñoom ñu fexe wëyal seen liggéey ñu teewlu ci kenn ci ñoom di Karamba ak Goudiaby ki taataan ay kàddoom di Ibrahima Diabaxate. ci 23 mesures yi lu ñu gën a soxal dem ba ci juróom-benn point yi nga xam ne yàlla dimbali nañu toog nañ ak ministère mu comprendre situation bi euh, mu teggi ko. si diggante bi nag mu am lu yëngu de l'autre côté les vingt trois mesures yi ñu dëgg ministre kii gouvernement bi jël ko ànduñ ci kon ñoom dañuy dem grève mais donc il est temps ñu woo suñu njaboot kuñ dëggal nag mu war a daje bi tey defe naa li xew ci salle bi kenn ku ne teg na ci bët tere ñu ku war a dem grève mais ñun cadre unitaire bi demuñu grève ndax ku di ku ne syndicat rek xam revendication grève se normal mais mooy dernier ressort bi nag ndegam eggaguñu foofu rek. non à la grève. kon sant yàlla tey juboo am na ñëpp d'accord nañu ni mardi ñun dañuy dem liggéey ñu war dem grève ñu dem grève mais ñun grève ñu defe naa loolu leer na si bopp ñëpp ma lancé appel nag ci état bi ndax saa yu grève amee am ñi car oto yi di yàq ñiy liggéey loolu nag responsable état ñoom nag lay adressé nag message bii bépp oto bi nga xam ne sécurisé wuñu ko ba mu am ci gàllankoor ñu yàq oto jàmbur ils sont les seuls responsables ñoom ñoo ko ñooy res dégâts loolu nag fii laa ko waxee nag pour ñu jël seen responsabilité parce que mënuñu nekk citoyen war liggéey nit war ñu empêcher du ñu liggéey nag te ñoom li ñuy seetaan loolu loolu duñu ko nangu donc loolu nag moo waral jotaay bi tey eh, sant nañ ci yàlla parce que woote nañ ni ñuy wuy nañu kon woote ñu wuy si nag ku ko am rek war ngaa dellu sant yàlla lii nag moo waroon ndaje bi tey. kuréelu euh, bi nga xam ne aussi tey jii moom moo def euh, ndaje bi mën nañ xam euh, ci xayma ñaata kuréel ñoo ci nekk justement cadre bi ñaata kuréelu way transporteurs yi ñoo ci nekk. kuréel parce que dafa ay secrétaire général ngay wax wala ay président de groupement bi ñaata syndicat ñoo ci nekk. voilà neuf ñoo ci nekk. ña neuf secrétaire ñoo fa nekk. neuf syndicat. waaw neuf syndicat waaw ñoo fa nekk. waaw. te neuf syndicats yooyu yëpp ñoom ànduñu ci grève bi. bi ñoom ñëpp ñu ngi sama gën. Hmm, voilà euh, kooku nekkoon euh, Karamba bi euh, bokk ci syndicat boobu nga xamee ni ñoom nee nañu bokkuñu ci grève bi nga xam ne transporteurs yi dañ ko nar a sumb ëllëg Fati accident bi ñu doon wax nag dafa mel ni lu am la ci yoonu Kébémer bi ci wetu Ngumba. Mhm. je pense que ñu ngeek Thierno Fall ci ligne bi moom bi nga xamee ni. Euh, mooy sunu correspondant bi ñu toogal ca Louga euh, ni ñu fay lim ci ñu ñàkk seeni bakkan nag euh, takku na lool dem na ba ci sax fukk ak juróom-ñeent Thierno maa ngi lay nuyu. waaw Cheikh waaw Thierno xibaar bi déggoon nañu ko ñu naan ña ngay vérifier recouper ndax lu am la yow mi nga hmm. xamee ni yaa ñu teewal foofu ca Louga am nga ci ay xibaar ni lu dëggu la. waaw tiis la waaye lu dëggu la. Euh, muy accident bu métti bu amati ci circulation bi euh, mi ngi amee ci euh, commune bu Sakal ci entre le village de Sakal et de Ngën Sarr sur la route nationale booy dem Saint-Louis muy accident boo xam ne fi mu toll nii amagul na lu toll ci fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama yu nga xamee ni ci ñàkk nañ ci seen bakkan muy collision mbëkkante bu am ci diggante ñaari kaar jaga njaay euh, xam naa benn bi Saint-Louis la jóge woon euh, bi ci des jóge côté Louga jëm Saint-Louis euh, muy accident bu doy waar bu nga xamee ni si daal comme ni ma ko waxee dix neuf morts pour l'instant ak ay blessés yu bëre bëri on parle au total de quarante quatre victimes Euh, maanaam ñeen fukk ak euh, ñeenti doomu aadama yu nga xamee ni si euh, accident bi laal na leen ba fukk ak juróom ñeent ñoo ci ñàkk seen mbakan mu amee woon ci booru cinq heures du matin actuellement sapeur pompier gendarmerie autorités yi ñoom ñëpp ñu ngi sur place xamaguma exactement village bi mais c'est entre le village de Ngueut Sarr ak le village de Sakal sur la route de Saint-Louis actuellement ñu ngi euh, wàññi pour dem euh, sur place euh, gën leen a mën a jox détail information yi nga xamee ni si tukkee na foofu Cheikh Tidiane. jërëjëf Thierno Fall voilà kon dégg ngeen ko Fati muy lu doy waar bërki démb rek fële ca kilo accident bu doy waar amoon fa ba daanak ñeent fukk ak euh, benn doomu aadama ñàkk ci seen i bakkan. Euh, une semaine plus tard euh, ca yoonu Louga ba wetu Kébémer tamit beneen accident. 19 morts. cinq heures du matin mu nekk ci contexte boo xamee ni dafa doy waar lool ci diggante transporteurs yeeg nguur yi ay mesures yu bees yoo xam ni dañ ko jël ngir sécurité routière mettre guñ leen sax en œuvre lu ne mel ñëw teguwaat ci euh, ndoddu réew mi euh, muy euh, wax dëgg fa yàlla lu doy waar te fi mu nekk nii nag jot na ñëpp jóg parce que lii mënul wéy quand même. Cher, en moins d'une semaine quasiment 61 morts hein, 42 mm. plus 19 ça fait froid dans mm. moins que l'on puisse dire et puis ci gën a mooy aussi heure heure bi mu am xam nga transport bi dañu jëloon décision ni dañ ko interdire mm-hmm. diggante euh, vingt trois heures ba cinq du matin mm-hmm. euh, ce qui veut dire que loolu su amee oto yi mm-hmm. guddi guddi guddi la doon daw te euh, li ñu wax tamit collision la entre ñaari kaaru Ndiaga Ndiaye muy xibaar bu ay waar euh, du ñàkk dinañu si dellu waat ak euh, Thierno Fall di ndaw li ñu fa toogal rek euh, mu andil ñu développement accident boobule 19 morts te tamit am na yeneen i blessé maanaam ñu ci am ay gaañu gaañu sunu ndaw li nekk foofu ca Louga dinañu ko toppal dañu wéy ci xibaar yi ak ba léegi ci secteur transport ak waa aftu ñi nga xam ne ni dañoo bëgg yokk seeni njëkk ci euh, euh, wàllub transport ndaxte jàpp nee nañu que njëgu carburant bi dafa yokk seen i charge tamit euh, yokk loolu moom moo tax ñu bëgg a def lu ne mel waaye ministère bi nga xamee ni moom moo yor wàllu transport moom daal dafa bañ tey nag la ñu bëggoon dugal sax seen i prix yu des yooyu ministère bi daal nee na mbirum tarif transport public routier Euh, décret 2009 20 euh, bu 22 janvier 2009 euh, moom moo ko lal te ñoom fi mu nekk nii jotuñu waxtaan ak kenn lu jëm ci aw wàllub yokk njëkk moom moo tax ñu dàqu ko waaye nag tey ci suba. ne am benn réunion d'urgence boo xamante dañ ko amal fële ca CETUD nar dox ci diggante euh, nguur gi ak euh, acteurs nekk secteur transport ba léegi ci secteur boobu la ñuy des ak vulcanisateurs yi nga xam ne ñoo nekk fële ca Tamba ñoom ñu ngi ñaan nguur gi euh, mu xoolaat mesure yi nga xamee ni dafay daq importation pneu occasion yi ak i tamit voyage yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci guddi liggéeykat yooyu nag di laaj nguur gi mu gën leen jàppale ñu teewlu ci reportage Moussa Omar Gueye ak Amadou Diédhiou. Tambacounda ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum defar pneu ak jaay pna muy vulgarisateur yi daal amal waxtaan feggoo kaak taskati xibaar yi nee nañu nag lenn ci mesures yi nga xam ne nguur gi jël na ko ni nag dootuñu jéggaani ci bitim réew di indi ay pneu usagé lu ñuy duppee ay pneu occasion nekk na loo xam ne dafay gàllankoor bu baax a baax seen liggéey. lu ñu jural ci wàllu liggéey bari na parce que ku ci nekk yaa ngi yor ay emploi ku ci nekk yaa ngi yor sa njaboot. te sa njaboot gannaaw yàlla yow lañu yaakaar yow it lu nga gën a yaakaar mooy ci sa liggéey bi sa jaay mi ngay jaay wala sa liggéey bi ngay liggéey. accident yi bëri na bon accident yi nu mu bëri bëri bëri bëri nañ xool poids yi chauffeur teg parce que pneu boo xam ne bii ñu ngi ko war a teg ñu ngi ko war a teg 30 tonnes 35 tonnes yow nga teg ko 70 tonnes. vulgarisateur yi nekk ci Tambacounda di xamle itam tàngoor bi nga xam ne ñu koy gis ci dëkk bi tàngoor bi ci tali bi ak tàngoor bi ci oto bi oto yi ñoom ñuy daw guddi mooy li nga xam ne moo gën ci pneu yi. bëccëg gi daw guddi moo gën a am jàmm ci pneu yi parce que pneu bi tali bi dafay am chaleur oto bi day am chaleur bëccëg gi guddi gi ci lay pneu yi gën a dund ci lay gën a yàgg. ci Tambacounda nag ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum defar pneu muy vulgarisateur yi ak ñi nga xam ne ñoo koy jaayaat bëgg nañu daal nguur gi daal di xoolaat doxalin rawatina ci mesures yi nga xam ne jël nañ ko ci bi accident bi amee 6 ak negeni si ci wàllub euh, politique nemmeeku tour 2023 Pastef ñu ne mobilisé nañu ci benn bés lu toll ci 330 millions francs CFA muy euh, une grande première euh, suñu sukkandikoo ci parti bi di rafetlu mobilisation bi nga xamee ni militants yi amal nañu ko ngir financer activité seeni candidat ci présidentielle 2024 ak activité parti bi présidentielle boobu boobule kii di Abdoulaye Wilane jàpp ni njiitu réew mi warul yóotu ñetteel ñetteeli mandat euh, moom porte-parole bu parti socialiste di woote rek euh, ngir retrouvaille grande famille euh, socialiste am euh, fàttali dañ koy jeexale fële ca euh, booru Kédougou ak Abdou Karim Fofana ministre bi nga xamee ni moom moo yoro wàllub euh, commerce am doon fa amal nemmeeku xool rek njëg yi fan lañu toll mu jàpp ni nag 75 pour cent taux moom moo fa am ci baisse prix yi nga xam ne gouvernement bi moom moo ko sumboon. Mm-hmm. waaye bi mu fa ñëwee nag fekk na fa opérateur économique yu waa diwaan ba fësal ko seen doléance ci reportage. ñu teewlu ci na ay jafe-jafe yi opérateur économique yi xamal kii di ministre du commerce de la consommation et des PME. mënoo toog say climatiseur di naan say café di xam lan la ñuy dund ñun Kédougou nag dafa am particularité ndax Kédougou gën a sori si Kédougou gën a sori si Sénégal par rapport à la capitale kon nag dañ ko si sant di ko gërëm di ko remercier mais nag di ñaan yàlla bi Covid bi amee ba léegi masuñoo jot dara loo xam ne jóge na si état ñëw si ñun te masuñoo grève masuñoo taali fëna masuñoo def lu dul ànd ak yar ak teggi nu ñu am ñu am ko si ngor lu ñuy ñàkk ñu ñàkk ko si ngor ñu xamal nag Kédougou Sénégal la bokk di leen ñaan quand même achat local bi nga xam ne avec les sociétés ñu jàppale ñu si ba mu effectif ba pare ñu renforcer dispositif recrutement des jeunes. ci jamono ji service régional bu commerce bu Kédougou jot na saytu 1600 commerce te ràññi nañu ci li tolloo si téeméer ak fanweer ak ñaar yi nga xam ne yi ñu joxe amende pour ñàkk respecter prix yi buñ ko xayma ci application prix yi téeméer boo jël juróom-ñaari fukki respecté nañu prix yi même su fekkente ne am na ay jafe-jafe bëri ci transport marchandise yi ab peut-être euh, Kédougou mérité na euh, dayoom toll na ci mu am marché bu bees comme ni ñu ko defee euh, ca Diourbel nañ koy defee ci Ziguinchor fexe ñu am marché bu dëppook jamono fexe tamit ñu am marché sous régional wax ngeen tamit appui boo xamante ne état bi mu ngi koy def ci yeneen gox goxaan di fa jàppale ay commerçant te yéen it ngeen yell ci ginnaaw jafe-jafe yooyu war nañu xolaat bu baax a baax commerce bi fii ci région bu Kédougou rawatina nag ci Jura yi nga xam ni bëri na ay xeetu commerce bi ñu fay def buy échappé service régional commerce bu Kédougou Euh, jërëjëf Ibrahima Jabaxate soxna Faty li moo fi gënoon a fës ci xibaar ci fàttali euh, li ci gën a fës muy beneen accident bu doy waar. Mm-hmm. am ci yoonu Louga bi booru Kébémer euh, fukk ak juróom ñeenti nit ñàkk ci seen i bakkan ak mm-hmm. ñeneen ñu si jëlee ay gaañu gaañu yu métti li ko mm-hmm. waral nag mooy collision maanaam ñaari njaage njaay yoo xam ni dañoo mbëkkante mi ngi xew ci ay côté 5 heures du matin soxna Faty. jërëjëf Cheikh Tidiane Diawo ñu yëkkatiwaat baatu inna lillahi wa inna fukki euh, bakkan ak juróom-ñeent liñ jotaguñ ci xibaar diggante Sakkal ak euh, Gën Saar ak Ngën Saar foofee euh, ca Njàmbur la Thierno Fall ma ngay daw ca bërëb ba luñ ci am ci xibaar dina leen ko baaxee liñ doon wax rek jooyagunu. Euh, ña faatu ca 6 kilos di jooy te noppeegunu beneen tiis dalaat sunu kew keroog maa ngi tooñ Chérif naan ko li nu mel euh, su continuer mbaa du jeex waaye li ñu gis dalul benn yoon euh, xelu askan bi tey ñëpp a sëngeem xol yëpp tooyaat na mu delloowaat ñu fu sori euh, ci ay bakkan fatkinne yuy dem ci anam yu doy waar euh, euh, lii nag mu tàmbale ci atum 2023 bi muy un bilan macabre Marcel Sànq il a fait le décompte ci benn ayu bés yaakaar naa bu ñu jugee ci 42 ak 19 une soixantaine de morts ci benn benn semaine c'est terrible. man xam nga yaa ngi wax sànq dinañ jeex man xaw lii fu ñu jëm. Mhm. ndax lii moom doy na waar ba. do du tu trouves même pas les mots pour wax doy na waar